sëñ Tuubaa dani dinaa simmeeku ci ñett bu njëkk ci samay doom yi di ma ko xoolee bi ci topp ci sama sët yi ba ci topp nag bokkuma ak moom askan bokkuma ak même meen euh, yaa rabbi soxla xam nga euh, bayit bi ci boppam lim tegtale euh, booba Euh, dëgg dëgg ku xalaat xalaat boobu ci xale bu toll noonu booba di ko yomb woy eh, yéemu woon eh, gannaaw gi nag la xam ne jombul man moo ma ko gënoon a xam ne yaa rabbi suxli jumlatal mataali bi eh, sëñ Tuubaa def ne yow yàlla mbooleem càkkutéef lu nit aadama di war a soxla yàlla nag ma womatal loolu yëpp ma am ko bilaa xisaabin te bu ma ci jëfandikoo dara ci adduna ji ñu jëm luy waral ëllëg buñ dajee maag yow yàlla ca ca rek nga dema ci xisaab te nag te it nag ma ko defal ci darajaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki xam ne mooy ibnu xaadim bayit bi loolu tegtale xam nga ñaan googu booba xale bu war a xam dëgg-dëgg maanaam woy woowu bi tàmmal ko làmmiñam bi boo toogee tuuti rek da nga dégg mu wéy ko loolu daal yéen ñëwoon naa ci xam naa jomb sax tey lay door a xam ne ndeke seetloon naa loolu ci moom. jërëjëf jërëjëf yal na la yàlla fay. La ilaaha illallah la ilaaha illallah la ilaaha illallah la ilaaha illallah laa ilaaha illallah